Euh, di wax ne allo Sénégal dama koy setan toujours ci YouTube. waaw. Euh, di leen euh, féliciter ak di rafetlu seen liggéey. waaw. parce que yu bari yena ñu ci dimbalé ñun wa diaspora bi. deug la deug la. waaw suñu ko raté aussi dañuy mhm. dugg YouTube pour mhm. follow allo Senegal. est-ce que est-ce waaw yal na leen yàlla yàggal ci liggéey bi sàmm leen aar leen. amin amin amin. léegi ñaar waa ci waaw. Uh-huh. go demal. ci Serigne As ci Serigne As lañ doon wax. loo ci waa As moom li ñu ci wax uh, li ñu ci mën a wax bari na. waaw. waaw da xam naa ne lu xaj ci benn émission mais damay wax ne uh, ñun waa bitim réew. waaw. li ñuy dañu yàgg dund yu metti. Mm-hmm. ku nek da ngay dugg may def li may gis li may def lele waye dama meuna japp ne serigne as mom lim fi dala wax ci lima commencé setan hmm xeyna branché wu ma woon mais bima commencé di serigne di sëri di seetaan sëriñ bi ben tay waw gis na ne du ci moromu kenn déedéet waaw xam nga affaire bi tamit dañ koy wax amul ray rayal dañuy wax ñepp ay doomu sénégalais la dëgg la dëgg la yaay boy waaw dañuy bañ a raay raayalal mbir mi comme ni euh, suñu borom bi tànnee Seydina Mohamed jiital ko ne moo fi gën. Mhm. waaw dañuy nangu aussi loolu parce que mhm. ñun yàgg nañu fay. Mhm, yàgg nañu joxe xaalis yàgg nañ di woote. da ngay woote fii ñu digal la sarax bi ak bii doo gis dara. ñenn ñi dañuy woote sax ñu ne dañ lay seetal après ñu éliminer seen téléphone yi dootoo leen dégg wala ñu bloqué la. waaw waaye sëñ As moom ba mu fi dalee wax ci commencé ko ci accident yi. Mhm. ñu ciy bàyyi xel teg nañ ci suñu bët. léegi ci li ngeen jëflante. waa ci li ñu jëflante. man dam daf ma dama ko woo comme ni ma wax rek dama gis numéro ci Allô Sénégal ma woo ko seetaan ay émission mhm. waaw euh, waaye euh, amoon suma doom bu feebaroon. ba jaaxaloon ma. nekkoon ci hôpital bi. Mhm. Euh, xam nga nga nekk ci àll bi. am doom bu nekk ci hôpital dafa dafa daw yaram dafa raglu waaw doo gis ku la dimbale bi ma ne léegi sës naa ku ne woon naa ko naa woo sëriñ as baxam bi ma ko oowee mu xool wax ma lu leer naññ ne ma dinaa ci taxaw incha allah dina génn ci hôpital bi ma nekk ah kaa bi garaaw na de mu ne ma lu mu garaaw garaaw dina génn ci hôpital oh. incha allah ci kàttanu yàlla mm-hmm. macha xale bi génn na delluwaat na ci ay activité waaw lii moom mën maa ko mën a seede sëriñ As joxuma ñaali dërëm sexaluma suukar. waaw dafa def ma gis. suma doom génn na macha allah ci hôpital bi. mi ngi doxi ay soxlaa mel ni na comme dara jot ko woon. oh. waaw ku mel noonu nag. ñun ñii lañu soxla parce que dañoo sori. waaw sëriñ As moom macha bari na jàmm fonk na nit. te dëgg-dëgg li may wax dama ko tibbee ci suma xool mhm. waaw euh, vraiment problème daal boo ko amee woo ko dina ci taxaw ndeysaan waaw lii moom mën naa koy seede ndax dama ko dund ak moom sonaluma nag ci benn dërëm bu kenn defe ne ni muy waxee nii ay million lay laaj wala dañuy dóor man jaar naa ci dóorkat yi ba teeral moom dóoruma de ndeysaan <laughs> waa yàlla taxawaayam yàgg eh? yàlla na ko yàlla bàyyi ci kanamu njaboot eh? fan bu gudd ak wér gi xanaa war nañ ko takkal ordre ah non dañ ko war a jox ordre de parce que li muy def daf ko teg ci yoon li muy def jafe naa nangu ñi fi nekk ci ci réseaux sociaux di wax yépp ku mhm. nekk gëmal man weddiwuma kenn mais moom moom man yàgg naa joow dama yàgg dox yàgg dem ci sëriñ moom li mu fi dara wax te man mi jëg leen ak mom xamna naa ne euh, sëñ bi du ko ndaw amna lu ko yalla may nañ ko ko nangul. nañ ko ko nangul macha allah. jërëjëf yaay boy kontaan nañ bu baax. wa jërë ngeen jëf yéen wa Allo Dakar ñu ñi ñaanal daal sëñ bi yalla na yalla amiin waay fanam. amiin waay may ko fan bu guddu ak wér gu yaram. amiin waay ba li def mu gën ko. À 30 ans, j'ai changé de vie. Et je vais t'expliquer comment. Je travaillais dans un grand groupe. Je gagnais bien ma vie. J'avais des horaires de dingue. Et j'étais pas du tout. ku fanam may ko bu gudd ak wér gu yaram ba li muy def mu gën a continuer incha allah jërë ngeen ah, jëf waaw sëñ bi nag wax dëgg yàlla nag wax dëgg yàlla nag xanaa dañ ko war jël ko jox ko réew mi nag ah am nañu ak ñu d'accordul donc buñ ko joxee réew mi ce sera compliqué mais position bi mu taxaw baax na buñ ko jox daray réew mi mu nekk jërëjëf yaay booy mu nekk benn ci témoignage yi nga xamante ni war nañ koo mën a jël ci Serigne As ndax bëri na bëri na bëri na ñoo xamante ni war nañoo mën a taxaw te bëgg nañoo taxaw seedeel li Serigne As ma wax ko encore une fois Serigne As nekkalu fi benn nit nekkalu fi sénégalais yëpp nekkalu fi sénégalais yi dong ndax ba bitim réew fu ne nit ñi dañ fay ne am seeni soxla